Balla Gaye 2 yaay ndaanaan mbër maa ngi nii ndaanaan baa ngi nii bu doon yow a barki alxuraan karim combat bi jeex na ñaari yoon ngay faqet troisième fois bi kat nga ndeyam daan ko wala ñu daan la gërëyee dëgg mi ngi nii mbër dëgg xool leen bi tey def na woon tekk Balla Gaye dugg yëngal ndeyi public bi kenn du yow ñaar ñi xoolal lak day faqet dem mais du mës a dem yow la de ñu daal la sax moo gënoon yow nga niil parce que da ngaa weex dunq ñëpp yow loon ko may yóbbu may liggéey ndaanaan baa ngi nii Balla Gaye kenn du yow Balla Gaye kenn du yow Balla Gaye kenn du yow les cœurs pour Balla Gaye waay cott ndeyi lii yow yaa jaral tëggal combat yaa méritoo combat yow millions yi mooy yóbbu may liggéey ndaanaan baa ngi nii Balla Gaye kenn du yow Balla Gaye kenn du yow Balla Gaye kenn du yow les cœurs pour Balla Gaye waay cott ndeyi lii yow yaa jaral tëggal combat yaa méritoo combat yow millions yi Balla Gaye de yaay ndaanaan mbër maa ngi nii ndaanaan baa ngi nii bu doon yow a barki alxuraan karim combat bi jeex na ñaari yoon ngay faqet troisième fois bi katt nga ndeyam daan ko wala ñu daan la guerrier dëgg mi ngi nii mbër dëgg xool leen stade bi tey def na woon tekk Balla Gaye dugg yëngal nday public bi kenn du yow ñaar ñi xoolal lak day faqet dem mais du mës a dem yow la de ñu daal la sax moo gënoon yow nga niil parce que da ngaa weex dunq ñëpp yow lañ